Touba ca kanam wajalilaay maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat Touba ca kanam wajalilaay maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi ca moo di nuyoo bi lislaam bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyo bi ak siyaar bi sëriñ taxa Mbàkke xalif général de Mouride te di ko ñaan yàlla sunu borom bi subhaanahu wa yàggal ko fi lool ca moo ànd ak wér moom ak mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp ak njabootu lislaam gi yëpp mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ànd ak ñun seen télévision bi di Touba Monde bi TV lëkkaloog rajo xasida online Touba Monde bi ñu ngi leen nuyu lu bari ca di leen siyaare cay rafet lu baax a baax ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun mbokk yi tey ñu dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bu am solo bu nga xam ne ñu ngi ciy ànd ak waa ACSI agsi nag mooy association bi nga xam ne moo lëkkale sénégalais yi nga xam ne ñoo nekkee ci diwaanu Treviso ci réewum Italie mu mel ne yàgg nañoo bay seen waar ci biir réewum Sénégal ci ay bànqaas yu fasantikoo noonu nañ ko defewaat itam tey nag ñu yëkkati ay jumtuwaay yu am solo yu nga xam ne mi ngi jëm ci wàllum luy saytu wér-gi-yaramu doomu aadama jébbal ko nag waa tubaa ca kanam ngir ñu indi ko ci dëkk bu tedd bii di Touba mu mel ne nag loolu lu askanu Touba yàkkamti woon la ndax ku nekk ci dëkk bu tedd bii di Touba ci jamono yi ñu génn dégg nga docteur yi nga xam ne ñoo nekkee ci hôpital bi di say Fawzayni yëkkati seeni kàddu ngir sàkku bépp jumtuwaay boo xam ne bu jëm ci wàllu jalis la rawatina ay machines yoo xam ne dana mën a dalal ñi nga xam ne feebaru jalis da leen a tëral. kon waa ACSI def nañ lu am solo ci jamono bi nga xam ne askanu Touba soxla nañ ko kon ñu ngeen ko gisee noonu muy ay carton yoo xam ne mi ngi def ay jumtuwaay. jumtuwaay yi toll na ci nag fukki machine ak ñeent yoo xam ne dafay saytu ñi nga xam ne ñoom ñoo amee feebaru jalis waaye mu am fukki carton ak juróom yoo xam ne bu ci nekk mi ngi def machine ordinateur bu aspect waaye itam amaat fukki carton ak juróom yoo xamante ni nii ñi ngi amee ay jumtuwaay yoo xam ne lu jëm ci wàllum paj la waaye yeneen carton yi ngeen gis itam def ay jumtukaay yu nga xamante ni nii moom mooy ànd ak machine bi ngir ñu installé ko mu dox ci anam bi nga xam ne noonu lañ ko bëggee waaye waa ACSI di association bi nga xam ne ñoom ñoo lëkkale sénégalais yi nekk ci Touba Treviso yemuñu foofu ginnaaw bi ñu amee jumtuwaay ba noppi italien bi leen ko jox itam juboo nañu ak moom ci bu machine yi waree ñëw Sénégal bu ñu amul ay techniciens yoo xam ne mën nañ ko monter ba machine yi dox ci anam bañ ko bëggee moom italien boobu dana bàyyi yitteem yépp ngir déplacer wu ñëw ba Sénégal installer machine yi ba machine yépp di dox nañ ko bëggee mu doog a dellusiwaat ci liggéeyam loolu itam di taxawaay di beneen jéego bu am solo liggéey bii la nag ni ngeen ko gisee jumtuwaay yu am solo yi waa ACSI di association bi nga xam ne moom lëkkale sénégalais yi nekkee ci Touba Trevisan yëkkati nañ ko teg ko ci loxal sëriñ ab Lahad Mbacke moom sëriñ Abibou Mbacke ngir mu teg ko ci loxal waa Touba ca kanam ñu indi ko ci dëkk bu tedd bii di Touba ñi ngi ko amalee nag ci kanam sëriñ Mamadou sañaan mi nga xam ne moom mooy njiital association bi nga xam ne moom moo di ACSI waaye itam ki nga xam ne moom moo di Serigne Modou Diop mi nga xam ne moom moo yore lépp lu jëm ci procès ci association bi nga xam ne moom moo di ACSI ak yeneen mbokki jullit ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi ci liggéey bu am solo bi de ca teewe ko kon mbokk yi liggéey bu am solaa ngi nii ay jumtuwaay yu am solaa ngi lu askanu Tuuba yàkkamti woon lool ca yittewoo ko waaye itam muy jéego yoo xam ne waa ACSID association bi lëkkalee sénégalais yi ne ci Touba Treviso duñ ñu ñu def ko ndax yàgg nañoo def lu mel nii ci biir réewum Sénégal ci ay bànqaas yu fasantikoo yu wuute waaye fiñ ko dugal tey yitte woon nañ ko muy lu am solo ndax lépp luy saytu wérgu yaramu doomu aadama dañ caa war di taxaw saa su nekk kon Touba ca kanam itam yitteem bokk na ci lépp loo xam ne lu dëkk bu tedd bii di Touba yittewoo la ci anam bu mën a doon ñu taxaw ci ba mu yegsi ci dëkk bu tedd bii di Touba di dëkkub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon ñi ngi sant bu baax di gërëm mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw liggéey bi la Serigne Abdoul Ahad Mbacke ibnu Serigne Abibou ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci tubaa ca kanam waaye Serigne Mamadou Sagnane njiital association bii di ACSI ak mbooleem ñi mu àndal ci liggéey bi ak ku ci mel ne Serigne Modou Diop mi nga xam ne moom mooy dox procès yi ak mbooleem ñi nga xamante ni ñi ngi jàpp ci liggéey bi kon mbokk yi li mooy li ñu andi woon ngeen àndoon ci ak seen télévision Touba Monde bi TV ak rajo Xassida online Touba Monde bi di bi nga xam ne moo jóg ngir liggéeyal Serigne Touba ànd ak waa Touba ca kanam ci wàllu diaspora bi ak bépp événement bu ñu amal ak fu ñu ko mën a amalee seen télévision Touba Monde bi ak rajo Xassida online Touba Monde bi di ci ànd ak ñoom ngir yaatal ko ba mbokki jullit yeeg mbokki talib bi yëpp man caa jot ñuy jaajëfal bu baax a baax seen mbokkum talib bi Serigne Modou Mbaye Thiam mi nekk ci wàllu xarala gi waaye itam jaajëfal Serigne Modou Diouf mi nga xamante ni moom moo yore wàll communication ci wàllu euh, Touba ca kanam ci diaspora bi waaye jaajëfal mboolem koo xam ne jàppoon nga ci liggéey bi ba lépp jàppandi seen mbokkum taalib Modou Assane Ndiaye moo nekkoon ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ndokkeel xaw na ñoo lott tey nag di wax sa kanam di yëkkati fi ay kàddu ñoo ngi ciy jéglu bu wér. waaw ñun nag dañoo nekk ay doxandéem yu daje woon fii rek sëñ Murtala jox ñu ndigal ci ñu bokk ànd ànd doon benn di dimbaleen ci suñ biir bañ foom la woon association bii ngay gis nii moo ñu joxoon tur wi ne nañ ko fi sos kon nag ba léegi ñi ngi ci kaw bàyyiwuñ benn yoon xéewal gi nag ñu am tey jii moom lañuy fas yéene fës yéene jébal Touba ci kanam ci liggéey bi mu rëy liggéey bu rëy bi bi nga xam ne sombi na ko ñu ànd ceeg moom bu wér pour wane suñ su suñ suñu ñàq di ci def lépp lu luñ man nag kon nag tey sëñ bi ñëw gi nga ñëw fii dañ ci am mbégte dañ ci am mbégte wala produit bii nga xam ne ñun ñoo ko dajale andi ko fii ci Treviso pour man rek dimbale ci ñu nekk Sénégal sëñ laa nag bi muy déglu association bi lottoon nañ lool lii nag xamoon na ko xamoon na ne wax dëgg yàlla doxandam yi tant que ànduñu doon benn duñ mën a saafara dara kon nag ànd doon benn ci lañ mën a saafara lu bari matériel bi ñu am tey ji moo di ne douze machines yoo xam ne euh, Modialis la marque bi Ospal la am na yeneen deux machines maquinaires yoo xam ne tamit Hémodialis la di marque euh, Gambro ak 15 scatula yoo xam ne mi ngi nii yoo xam ne ay computer ñoo ci nekk ak matériel boo xam ne moo jëm ci ci ci ci ci hôpital bi ak 15 scatula yoo xam ne tamit vari produit hygiénique moo ci nekk yooyu yëpp mu ngi nii tege waaw kon nag matériel bi nga xam ne tey jii moom lañ fas yéene eh, teg si sa loxo moo nekk nii si sa ginnaaw ñu ngi ñaan yàlla eh, jàppale ñu bu wër bañ def lu ëpp lii waaw mu li nekk suñu xeer nag mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa ba faw ba ilaa yawmi diin eh, léegi ma jox président mu wan mu présenté suñ mbootaay bi nga xam ne mooy ACSI des associations boo xam ne sëñ Mourala moo ko fi dégloo salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi kenn ku ne ñoo ngi koy nuyu ci turam ak santam di baal àq ñëpp di balo àq itam ñëpp di ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te wér liggéey bi nga xam ne moom la war a liggéeyal maamam Serigne Touba mu am ci lu kawe njortam. lépp loo xam ne naal na ko mu àggale ko ci jàmm di nuyu bu baax sëñ Abdou Lahad mi nga xam ne ñëw na fii tey ci bureau ACS ngir ñëw ci ay taalibeem ci këram seetsi leen naam ñoo ngi koy jégglu bu baax di ko jox wàcc waayam bu toogoon fam toog ne président agsi dama soxla mu ñëw ak matériel ba incha allahu rabbi danañ ci def lu ñu man pour mu agsi ci loxoom ndokk bi mu amee woyof ñëw ba fii fekk suñu ñoo ngi koy ndokkeel ci loolu di ko jox wàccuwaayam agsi nag day association boo xam ne association bu mag a mag la am ay projet ak liggéey yu mag a mag yoo xam ne def na ko Sénégal te lépp ñu ci jàppoo ak tubaab yi waaye bala ma gën a xóot di présenter bureau ACSI naam ñi dong du ñin àndal di liggéey am na ñenn ñoo xamante ni nii euh, temps bi xat na jatt na leen ba taxoon ñu am yeneen yitte dem ca waaye leer na ma seen xel yëpp moo ngi fii di wax ne suñ secretaire général sëñ Omar Seye moo ngi ni toog sëñ Modou Diop mi nga xamante ne ni moo yor projet yi mboolem lu jëm ci projet yi moo ngi nii taxaw ki nga xamante ne nii mooy trésorier sëñ Moustapha Ndiaye moom it moo ngi nii toog ki nga xamante ne nii mooy huitième mooy huitième topp ci gannaaw muy sëñ Dame moo nga nële ki nga xam ne nii moo nekk ci commission bi nga xam ne ni lu ñu organiser muy organisation bi muy sëñ Baba Ndiaye ak ñim àndal ñëpp ñoo ngi nii taxaw moo nga nële ñu wëlbatiku dem ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo waral mbir mi muy waa commission sociale te sëñ daam dem sëñ daam dem jiite ko moo nekk na la taxaw e soxna ulimata mi di jigéen koo xam ne jàmbaar la lool itam topp di ko jàppale guddi ak bëccëg ak sëñ maa liggéey mi nga xamante ne nii ci représentant yi la ndax ak si dafay def comme lépp photocopier la Touba ci kanam dafa am ñoo xamante ni nii ñoom ñooy racolière yi ñoom ñoom ñooy représentant yi gox bu ne dañ fa fexee am ay représentants pour ñoom kuy bindu ci ñoom ngay bindu lépp nag doog di ñëw ci trésorier bi ñu am benn escadre boo xam ne mbooleem ku bind ci aksi euh, sa tur mi ngi fanaan ci ñun amul lenn loo xam ne dañ koy nattable naan ki ak kii wala kuñ dimbale itam wala fun la mos a dimbalee euh, def nañ ko ci këyit nga xamante ni ni fuñ toll dana am trace ndax dëkk bii ñu nekk moo ko woote mooy lépp loo xam ne dañ koy liggéey dañ ko war a teg ci yoon teg ko ci ay kayit rawatina bi nga xam ne nii sëñ Mourtada Mbacke góor yàlla gi moom moo ñu ko digal lu bëree bëri bi mu ñu koy digal am na ñoo xam ne nii xamuñu ko woon muy kër yi muy association yi muy lu mu manti doon tey de nit ñi fi faatu ñu naan xamuñu seeni bokk ak yeneen ak yeneen te ñi nga xamante ni digaloon na leen ñu def ko ñoom dong ñooy mujj jël seen i seen i seen i am seenu koom wut ñu leen jàppale pour ñu yóbbu leen Sénégal kon bu fekkoon te ne déggoon nañ la sëñ Mourtada Mbacke waxoon kon duñ agsi foofu loolu itam yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na yàlla yokk reeram ba liggéey bii ñuy liggéey jëmee ko Sénégal moom moo ko waral ci loxoom la la la ñëwee moo tax biñ ne tuubaa ci kanam dama ne sotti ci ak def ci la moo tax ma ne sëñ Abdoul Ahad ñëw nga sa ndax fii sëñ Mourtala Mbacke moo digle li tax lii am ACSI nag day association boo xam ne nii ñëpp ci bokk bu ñuy def euh, bu ñu tubbee Touba ca kanam dama naan Sénégal ca kanam ndax ñun li ñu soxal mooy lu soxali Sénégal am na école yoo xam ne tabax nañ ko Sénégal euh, hôpitalu Ndaamaata boobu yokk nañ ci 7 mètres ci pédiatre bi boo xamante ni kenn yëgu ko te lépp ci projet yi ci ACSI yi la jóge ak yeneen ak yeneen ak doc docteur yoo xam ne toujours ñu yóbbu leen ci màggal gi ren demuñu te loolu lépp ñàkk collaboration bu doy moom moo ko waral kon nag bu fekkee ne Touba ca kanam jóg na ñu gis doxin bi muy dox dana yombal suñu liggéey lool lool ba liñ bëgg lépp di wax sëñ bi nga ñaanal ñu ba li nga xam ne moom lañ yéene lépp mu dem Sénégal euh, ñu ñu def ko ci jàmm ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci kanam tuuti ki nga xamante ne nii moo yor projet yi incha allah ak waa commission sociale dinañ wax bu baax a baax li nga xamante ne nii moo moo nekk ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuy bokk bokk jataay bi yépp di ci jiital sëriñ Abdou Lahad mi di ko ñaanal yàlla sama borom gën kaa dëgëral bàyyi ko suñu kanam kàttanal ko ba eh, yéene gu mu am ci yi ñu seem muy Touba ca kanam ak yeneen sama borom mottali ko yéeneem te mu ànd ak mboolem dongo yi. di jël ci nuyoo beeg ziar yi sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla sa borom guddal fanam lool kàttanal ko mboolem naal yi mu ànd ko ak ko te sémb dañu ànd ko ak rafet lu baax na jataay bi di nuyu jëriñ ñi nga ne moom lañu fekk di rafetlu seen taxawaay eh, di dellu sant sëriñ Mountakha Mbacké bu baax yàlla na ko saa borom leer yàlla na ko saa borom doon leer te tas ñu ci barkeem wax dëgg yàlla eh, menn kàddu bi donc moom ngay dégg ci mboolem barab yi foo dem moom ngay dégg barab boo dem lu mel ni taxaw fa kàddu gi njëkk jib mooy Serigne Moutala Serigne Moutala moo moom ko digaloon kon day mel ni eh, moom bàyyi woon na xel lu baree bari te noonu nga ko waxee sëñ Modou Signane noonu la demee ndax bari waa nañu bari ñuy wax ne kër Sëñ Tuubaa bi ñu koy digalee kenn xamutoon lu tax ñu koy digalee dana wax sax ne bu leen ko tuddee kër Serigne Touba da ngeen ko tuddee kër lislaam ndax dangeen ci mën a euh, yar seenu njaboot te boobu jamono yi muy wax loolu ay soxna sax daanaka newu ci réew mi waaw ay soxna boo fi gisee soxna da koy dégg ñaan benn soxna am ci gox sàngam waaye nag ku ne léegi xam na ne daanaka am na ñoo xam ne fii lañ juddoo yaroo fi màggee fi ba dem sëy te loolu Euh, fekk gul sëriñ bi di wax li wax jox waxam jooju noonu kon yàlla ak doo borom doon ñu barkeem wax dëgg yàlla liggéeyam mu ci nayib lool euh, xam naa di ñëw ci fi ngeen daanale rek ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom ngeen di taxawal wax dëgg yàlla ñu leen sant bu baax a baax ndax kenn ku nekk ñun ambassade la ci fu muntu doon waaw donte sëriñ bi sax diggaluñ ko woon noonu la waroon demee kenn ku nekk barab ba nga nekk war ngaa fexe ba Euh, ñu xame ci sama réew ci ak njàmbaar ci lépp ndokk yàlla ba ngeen ci taxawee kon yàlla saa borom dëgëral li yegg yeggale seen yéene ba lépp loon yéene ci Sénégal saa borom defal leen ci lu kawe njort ñu de am nañ mbégte lool ci seen taxawaay kon day mel ni moom mooy jëriñ moom nag wax dëgg yàlla ci gooye fam dafay ñëwoon ci bés boo xam ne seen Aj Tàkk Mbakke lañ ko doon euh, defal fële ca Varese waaye bëgg gim bëgg liggéey gi ak yéene gim ci am bëgg ñëpp murit yëpp jariñu ci tax mu ne foo leen yaakaar ne sama tànk su fa tegoo liggéey bi mun na cee yokk noppi naa ci ànd ci yéen eh, ba nar fee def mat weer yoo xam ne demul ci benn taalibe ngir àddi lenn Touba ci Kanam dong moo ko fi bàyyi ngir bëgg mu yaatu murid yëpp dégg ko ba ñun ñëpp ñu jariñu ci kon ñu xamee ko noonu moom loolu moo ko fi bàyyi loolu moo tax eh, muy def benn tournée boo xam ne eh, dafa bëgg am yéene jàll ci mbooleem barab yi nga xam ne yittewoo nañ ko fa ni ki barki démb rek ma nga woon Milan ci ñaari daayira daayira bu Milan ak daayira bu Monza tey jii mu ngi fii ci yéen euh, bu ëllëgee euh, war naa dem Verona bu fa jógee demaat Zingoña bu ca jàllee ca loola war naa dem euh, Rome bu jógee Rome dem Caserta bu jógee Caserta dellusiwaat Torino bu jógee Torino dem Genova bu jógee Genova dem Toscana bu jógee Toscana dem Pisa bu jógee Pisa demaat Rimini doo ko jàll France kon xam nga. loolu yitte gu mag la wax dëgg yàlla dañ ko ñaanal yàlla saa borom dëgëral ko ndax wax dëgg yàlla am na yéen ci liggéey bi euh, ñun nag wax dëgg yàlla suñu teew ak moom fii ci biir ci Treviso euh, ñun ñoo ko sàkku ndax dañoo xam Treviso maam euh, li ko suñu borom defal ci liggéey Sëriñ Tuubaa yi te it Tuubaa ci kanam bu weesoo xaalis bi nga ne moom la ñuy dajale muy ñaar téeméer yi nga xam ne moom sëriñ bi wax ne daa bëgg képp koo xam ne donc Sëriñ Tuubaa ngaa sëriñ bi ñaar téeméer par weer suñ ci amee ñaari million ngu murit weer wu nekk danañ mën a dajale ñaari milliards euh, bu at mi jotee ñu am 24 milliards su boobaa dootuñu nekk gouvernement ci dara lépp lu ñu bëgg def war dañ ko def euh, loolee <coughs> euh, naam moom mooy xam ne moom mooy esprit Touba ca kanam parce que mbir moo gis day am esprit esprit ko ci wax baat tubaab la ñu ko déggee mooy cëslaay waaw lépp loo gis day am cëslaay yi mooy loolu waaye it warul yam foofu ci sa suñu déggin bu gàtt ñun dañoo jàpp ne warul yam foofu dañoo jàpp ne bu weesoo alal jooju noonu eh, diaspora bi richesse la ci ci Touba ca kanam war lañ ko mën a exploiter ci beneen domaine te yéen fekkoo leen ci loolu ndax naam daan ngeen ko def lu jiit loolu ndax Touba bari na looñ dugal loo xam ne Toscane def ko ñeneen barab yëpp def nañ ko mais bu Touba ca kanam ñëwee nga xam ne moom eh, yamul ci benn gox Touba ca kanam daa am yéene defar Touba gi yëpp fépp foo xam ne rek am na lu fay mitti am na yéene def fa loxoom wala sax seppi loxo ña fa nekkoon yoral ko ngir bëgg lépp ñoom kon bu ñu déggee eh, télévision doxin Touba ci kanam dafa jàpp ne dafa war a ñëw jege si leen weccante ngeen ay xalaat bu ko jaree ñu jiima lëkkaloo ba lépp loo xam ne eh, Touba dana ko soxla mu gën a yomb ndax it eh, loolu rek moom mooy liggéey bi Touba ci kanam nag fii ci Italie ndax eh, am na cellule cellule parce que Touba ci kanam moom genn rek la foo ci dem ci àdduna bi da ko fay dégg waa ne genn rek la xëy na dogal yàgg lépp ca Sénégal la ne ndax foofu la comité directeur bi nag nga xam ne lépp lu ñu dogal fa lañ koy dogalee waaye def nañ ay cellule ci mboolem gox yi bu dee jaal nag def nañ ci benn cellule boo xam ne daanaka ñi lañ ko composé dañoo def benn commission de coordination boo xam ne ñett nit ñoo ko jiite sëriñ Abdourahmane mii ci la bokk sëriñ Xaas mii ci la bokk Baye sëriñ Diop bu nekk Cesena ci la bokk su su commission coordination boobu ñu def ci suufam benn bureau exécutif boo xam ne dañoo fexe ba dañoo wax ne mbooleem région yi nañ fédéré wu ba pare buñ fédéré wu yónnee ay mandataires yoo xam ne ñoom ñooy fekk ci commission sous commission coordination bi waaye duñ ca yam ñu créé ay sous commission teg fa ay jëwriñ jëwriñ yooyu ñu jëlaat leen defal leen ci biir biir exécutif bi jën ñenn ci waa senegal ñi nga xam ne ñoom ñooy jëwriñu liggéey bi dugal leen ci biir biir exécutif bi waaye jël ñenn ci kilifa yi nga xam ne ci dëkk bi lañ nekk di ay borom xam yàgg ci liggéey Serigne Touba ñu boole leen ci biir ngir lan ngir foofu dañ fa nammo lépp loo xam ne luñ soxla ci biir dëkk bi la ñu di ko fa wàcceentoo xalaat lu luñ fa tënkee muy loolu ñu doon ko jubal waa Sénégal ndax day fekk mu nekk lu wér euh, commission coordination bi nag ñoom dogaluñ dara naam ñoo nekk ci bopp liggéey bi lépp loo xam ne lu ñu war a jàllale des na ko jàllale ci ñoom ñu indi ko ci biir bureau bi waxtaanee ko bu ñu ca noppee ba ñëpp dëppoo ci delloo bu ko jàllale noonu la demee sous commission yi mënoon tudd noonu nag def nañ sous commission finance nga xam ne mboolem luy xaalis ñoom ñoo koy saytu li ko lijjanti topp reçu yeeg xaalis moom kenn du ko def ko ci euh, compte Touba ko jël reçu yi yónnee ko sous commission euh, finance bi ñoom ñoo koy saytu ko topp ba lépp mat bu weer dee ñu def ay tableau pour wane ne dëkk bi dugal na nangam ak demee amaat beneen sous commission bu ñu tuddee sous commission massification sous commission massification la sax ak discipline moom moo ko jiite. nga xam ne moo yaatal liggéey bi di ko jàllale ci médias yu bëree bëri ci ñu ngi ciy dox ci loolu am sous commission bu ñuy wax sous commission technique scientifique mooy suñu Xaadim Ngom nga xam ne carnet yii ñu defar ngir bëgg mu nekk ak jàppandal ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy collecteurs yi jox leen ay carnet après defar ay barjak am logiciel yoo xam ne képp kuñ jaay carte. dañuy imposé collecteur bi mu dugg ci logiciel bi enregistré turam ci biir logiciel bi am administrateur yi fa nekk nga ne man mi ci laa bokk ñoo xam ne ku ñu enregistré dañ koy gis pour di mën a am ay fichiers yu leer di xam dëkk bu nekk ndax dox na am dox rek demee noonu. am yeneen sous commission bu ñu woowee sous commission évaluation euh, euh, suivi évaluation boo xam ne moom mooy topp li nga xam ne moom lañ jëlee ci biir bureau exécutif bi di ko topp ndax ñu ngi koy def ak ndax la mu waroon mel nag melu noonu. Euh, def benn sous commission secrétariat man fa nekk ak ñeneen bokk taalibe am sous commission bu ñuy wax des nga xam ne kilifa yi lañ fa jël teg fa ñuy topp waa comité des sages nga xam dañ fa euh, def kilifa yoo xam ne dañuy topp liggéey bi di xool bu fekkee ne am na fenn foo xam ne am na ay rëkk-rëkk ñu di leen topp leen bàyyi xel kon noonu lañ ko tëggee lépp it jubluwaay bi mooy fexe ba euh, liggéey bi jën a yaatu ñëpp gis seen bopp ndax naam lu ko jiitu cor euh, coordonnateur général moo fa nekkoon waa comité des sages comité des sages bi moom mooy ñi nga xam ay jëriñ ñoo nekk yoo xam ne ay kilifa lañ ci biir dëkk bi ak ay borom xel yu rafet yoo xam ne ñoom ñooy topp liggéey bi di ko jooyante bu fekkee ne gis nañ ci ay rëkk-rëkk yoo xam ne mun na ca ñàkk te bañ a indi leneen waaye eh, ma ma ma ma doon wax ne eh, lu ko jiitu li fi nekkoon mooy coordonnateur général nga xam ne Serigne Moussa Mbacké Rom ci loxoom la nekkoon naam liggéey bi sax ci moom loolu loxoom la jaaree dugg si ci biir Italie moom moo fi nekkoon waaye xam gi ñu xam liggéey bi ni mu ak ni mu soxla ci ak ak ak communication. bàyyi ko ci benn loxo nit rek dafa doyut waaw lu ñu ko jën a yaatal ndax boo dee seet ñii xëy na jóob Diop nga dégg ñu ne xaas Diop Abdourahmane jóob bàyyi Serigne jóob da ngay defee ne ay bokk lañ waaye yàlla xam na ne ñi ci ëpp ci ñoom ci fii lañ xamante ci Touba Ca Kanam lañ xamante waaw ñu ngi doog xam ñu yàgg booy it ku ci nekk yaa ngi ci gox bu bokkul kii mu ngi ci zone euh, Veneto bi kee ma ngi ci zone Lombardia kële ma ngi ci zone Reggio Emilia nga xam ne xamante woon Eh, jubluwaay bi eh, tay bi ñu leen koy samp it ku ci nekk da ngaa lànk man mii mbokk naa ci ñu may waxal ne leen bu ngeen defee ne liggéey Sëñ Tuubaa ku ñu ko joñ nga du man bu yàq ko yéen ko yàq loolu moo tax ñu bari dellu gannaaw daan ne kon nañ ci def te jàpp yàlla waaye na ngeen xam ne it du ko téye ba faaw da ngeen may dimbali pour benn abs rek bu fekkee ne kii nañu dindi ko kon lii mooy li nga xam ne moom moo tax ñu def commission coordination lépp it ngir si te it ma utal ko ay lay jeex ak yëpp am amu ngi ci biir loolu nag buñ ko dee leeral liñ ci jublu rek mooy maanaam nit ñi ñemee liggéey bi ku mel ni eh, association ASIC bi nii eh, AXI ak yeneen ñoo xam ne ñu ci biir dëkk bi ndax Italie yàlla defal na ko tawfee boo xam ne man damay wax ne eh, Italie joxuñu Sëriñ Tuubaa la ndax bu dëgg yàlla nit ñi ñu nekk ci yeneen diaspora yi bëgg nañ lool waaye ku ci nekk Italie nga teg bët loolu nag du suñu du suñu njàmbaar ñun ndimbalu sëriñ bi la rek ah, du suñu njàmbaar ba tax na potentialité boobu ñu am dañ ko war a exploiter dama jàpp ne pour mu mën a yomb faaw dañuy bokk ànd. ndax lu ñu jën a dajaloo rek muy jën a yomb ci lu luñ gën a dajaloo mu gën a yomb ñun kon lu mel nii bu fekkee ne am ngeen ko keneen am ko kamean ko ñu ko déggee dafay jé kon heure bi fekkoon na yóbbu nañ ko bu yàgg ci bay wax leneen luñ gën a jege rek mu gën a yomb daal li ma leen di oo mooy ñun ñëpp ñu xam ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba dëkkul ci këru kenn du kër sëñ Moussa euh, sëñ Moustapha du kër sëñ Massamba du kër ma kenn këru Serigne Touba la ñëpp ci bokk yam nañ ko ànd ñëw ku nekk bàyyi ko xel te lépp lu waay am jege si Touba ca kanam lu mu ci bëgg a xam ci lu ci lu leer des na ko xamante am du am benn nëbbu eh, tawféex yi ngeen am nag ci lu mel noonu commerçant yi ngeen di yóbbu soxla na ko ndax tey fim tool toll nii yi nga xam ne Touba Ca Kanam mu ngi koy tabax war naa mën a nit war na faa mën a dem def eh, diagnostic ci collaboration bi ñu am ci médecins yi nekk fii nii eh, diagnostic boobu ñu yónnee ko fii ñu defal ñu kii bi bu gaaw jox résultat bi même pas balaa semaine mu jot ndax Sénégal dañu gis ku def di toog di ay weer. te am nañu taw féex mun ko saytu ci lu gàtt yónnee ko ko te lu ñu dikk dara lépp ça dépend ci rek kon daal li bëgg a xam ay bu ñu yem ci ne xaalis dañuy jaay rek ay ay ay reçu di ko yónnee Sénégal ñun war nañoo wees foofu ñun dañu war a jàpp ne euh, euh, euh, reçu yooyu ñu jaay ak taaraan la ci liggéey bi mais liggéey bi dëgg dëgg mooy mooy potentialité bi ñu am ñu exploité ko te yóbbu ko ndax loolu moom mooy li nga ne moom lañu jëriñ maa ngi jégglu nag baax baax ci guddal gi bëggoon a leeral rek loolu daal moom mooy tànki sëriñ ak mboolem ñi nga xam ne ñëw fii nii sëriñ Xaadim Ngom moo nekk nii Euh, Baye euh, Baye Xaas Diop Abdourahmane Diop Serigne Diong ak euh, Modou juuf ñoom ñoo jóge woon fa ab ñëpp bëggoon na ñëw ak ab Cheikh Alaaj moom mooy jëruñu Veneto bi wax dëgg yàlla ñu bari bëggoon nañoo ñëw waaye ne xam ngeen naan li li duuf ci xel yëpp mu lam ñu kaa kon ñoo ngi gàttal foofu di jégalu lu baax tey gërëm ñëpp di asalaamaaleykum jërë ngeen jëf. waaw bisimilah ñu jox Modou Modou Diop mi nga xam ne moo yor commission. commission projet bi nga xam ne moo ko yor. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëriñ Abdou Lahad ñu ngi lay nuyu di la wax dalal ci jàmm di sant yàlla bu baax ci gise gi ñu gisantewaat fii ndax su ma juumul lu matul fukki fan ci ginaaw gisante nañ ci bu dem naa ba këram kon bu ñu dikkaatee fekk fii lu matul fukki fan ci diggante wax ne ay junniy kilomètres kon dafay am lu moo loo xam jotaay bi lu muy seere si ba ma ñëw sama mag laa fa àndal sëñ Fallou Diop ak euh, Khadim Diouf bi nga xam ne moo nekk ci Touba ca kanam foofu ci ci Touba. Euh, muy nuyu nag ci turu suñ président sëñ Modou Signane moom bi mu waxee ba noppi rek daanaka man jërutoon may wax ndax waxam rek moom mën na jugalaat ñu ñëpp ci biir. man Mouhamadou Lamine Diop laa tudd yàlla dogal ni ni ko sëñ Modou waxee ñun ci dëkk bi lañ bokk nekk fii mooy gox bi nga xam ne moom la ñu sëñ Touba tànnalagun ñu nekkandi fi ndax xëy na naam am na ay yeneen barab yu jaar door a ñëw fii waaye fii moom ñaar fukki at yu mujj yi fii lañ ko nekk kon euh, bokk nañ ci waar yu bay fii ni ko sëñ dogal ah Touba ci kanam nag di liggéey boo xam ne nii ñun ñëpp bi ñu ko déggee dañ ci am yéene. taalibe yëpp ci am yéene julli yëpp ci am yéene dégg naa ci ay kilifa yu ci wax yoo xam ne sax ci meneen beneen beneen euh, ki kàddu la wuju waaye teew ñoom ñu ngi koy rafetlu di ci ñaan station bi nag day station boo xam ne nii tur yi ni ko sëñ mont euh, sëñ Mourtala joxe mooy jamhiyatu taxawuni ala taxatillahi wa rasulihi moom mooy tur bi buñ ko bu ñu defee tradition bi nag ci làngu réew mi ñu nekk nag moom lañ ko tuddee maam association culturelle sénégalaise taali jublu rek ci lépp loo xam ne nii lu amal njariñ askan bi la rawatina Sénégal yi ñu di ci taxaw ndax dëkk bi dafa am ay loi ak i normes yoo xam ne ni immigré yi ñooy jànkonte ak moom ndax boo fi bëggee nekk dafay am fooy jaar am fooy teg sa tànk am looy war di moytu loolu nag association bi daf koy jël di ko segg di ko leeral ci sunu kàddu wolof di ko wax sax ci italien bokki taalibe yi fi nekk di ci dimbale sax yeneen xeeti jullit yeneen xeeti immigré yi nekk ci dëkk ndax fii ñu nekk ni siège central bi mooy seesu ko maanaam euh, maam coordination coordination mboolem association immigré yi nekk fi ci télévision nga xam ne 94000 lañu 52 association lañ fii mooy seen bureau ñun ñoo leen invité tey leen suñu bureau fii xeet yëpp ñoo fi nekk ñun Sénégal yi dixième position lañ nekk Euh, dëkk boo fa ñëwee jaar nañu leeral la lool région bi ñu nekk nii 511000 lañ fi immigré waaye ñun Sénégalais yi 2300 lañ ci département bi ñu nekk mais bu dee ci biir région bi 8600 lañ fi kon ñun lu ñu songu mën nañ koo daane ci kàttanu borom Tuubaa dëkk bi expérience bi ñu fi am war nañ ko mën a appliquer. sama mbokk mu baax mi wax léegi jot yëkkati joxe àddiya bi moom ñëpp a koy def. waaye nag am na beneen liggéey boo xam ne mën nañ ko def mooy lijjanti loo xam ne dafay xettali ñu askan wi nekk Sénégal te xëy na ñun fii buñ ko fi dee lijjanti duñu dikk dara def loo xam ne nii boo ko defoon am ci fayu yàlla te boo ko defutoon na dara du la ca fekk waaye boo ko defee am ci fayu yàlla def gi moo gën kon machine yi ak yeneen yu ko jiitu ca xëy nañ mosuñ ko médiatiser tey la ko yàlla dogal président wax na ko sànq hôpitalu Ndamatou bi ci tuubaa ñi ci ñi dëkk Touba xam nañu miir bi yemut ni mu mel nii melu koon bu njëkk miir bi am na fu mu yemoon waaye ñun ñu andi benn projet bëgg fa tabax benn bâtiment xam ne ñun région bi ñoo ko financé ci turu association bi ñu wax ko Serigne Saliou Serigne Saliou nañ wàññi ci mbedd mi juróom-ñaari mètre dolli ko ci kon boo ko Serigne Abibou ba ca koñ bi mu dindale ñaari mètre yooyu Serigne Saliou moo joxe ndigal ñu xëtt ko dolli ko ci hôpital bi mën a génne bâtiment boobu bâtiment bu ñun ñoo ko fa def ba tey mosuñ ko immigré parce que mënoon nañu ko inaugurer def marque région bi parce que ñoo ko financé mais ba léegi defuñu ko dañ ko def rek addi Sëriñ Tuubaa biñ koy def ñi ngi tabax beneen école boo xam ne nii Kër Bakary Sarr lañ ko tabax ci commune u euh, Daaru Xudoos Mboor Kër Bakary Sarr am nañ tabax nañ benn école boo xam ne nii plus de 300 élèves ñoo fay jàng 4 classes ak seen i toilettes yëpp station bi ñoo ko def kon ñun bu Touba ci kanam dikkee ñu daf ñuy soññ soññ gi ñuy sonn it tax na at yii yëpp daa ngeen dégg ne bu ñuy def euh, cérémonie officielle bu màggalu Tuubaa gi euh, médecin yi italien yi ñëw ci màggal gi ñun lañ daan àndal ñëw ci màggal gi juróom-ñaari at a ñu di ko def ren yàlla dafa dogal xëy na manque de communication sax moo tax ñëwñu ak am médecin yi def am ci ko ci faatu waaw médecin bi njëkk a ñëw Tuubaa ci màggal kooku moom dafa faatu moom moo fa njëkk ñëw dafa tawatoon nag yàlla dogal nag ñi ngi programmé machine yi ab tàmbali la ndax dafa am programme bu ne ci ginnaawam boo xam nii li ñu bëggoon ñun suñu xalaat mooy fexe ba hôpital yu nekk Touba lu mel ni hôpital Matlaboul Fawzeyni ba fa ne di hôpital niveau 3 fexe leen ba wutal leen ay nattangooy ay médecins nekk fii yoo ne nii dana tax ñuy collaborer ak ñoom ba mën a jàppandi ñoom ñu di leen former ñu mën a déparé Sénégal ñëw fii ñu defal leen formation 2 mois 3 mois delluwaat Sénégal loolu waral na at yi ci ginnaaw am na benn délégation spéciale boo xam ne commune Touba ñoo ko jiite woon Alaaji Ndiaye ci la bokkoon Sidi Ahmed ak euh, Mame Mbaye Niang ak euh, délégation six personnes lañ ak ñaari médecins yoo xam ne kenn docteur Fall bi nekk hôpital Ndamatou ak docteur Ndiaye bi nekk Matlaboul Fawzeyni ñoom ñoo ko fekkee woon fii lañ ñu doon a tànn ay leen fii ñu former leen delloo leen Sénégal di ko def bu yàggee ñoom di dimbale nit ñi leen parce que seen médecins yi jàmbaar lañu seen médecins yi jàmbaar lañu mais il faut ñu former loolu moo waral kon ni nga xamal ne maanaam gannaaw machine yi am na beneen programme bu topp ci suñu ginnaaw boo xam ne ni fas nañu yéene incha allah mu jëm ci wàllu formation boobu. am na fi benn organisation boo xam ne ni benn docteur bu ko jiite moom ñëwoon na ci Touba euh, Magal Touba daaw moom nee na pare na pour euh, dalal 4 wala 5 médecins yoo xam ne ñëw fii pour dañuy def ñu former leen jàll leen léegi ñun def waaw def wàllu stage léegi <coughs> formation boobu ñu nga xam ne moom la ñu soxla rek. dossier yi nga xam ne ñun moom la ñuy soxla ñun si suñu diggante fii ak Sénégal comme Touba ci kanam ndax tey tu ci kanam lañuy ñuy waxal mooy dossier bu ñu soxla bu yónnee leen ko neen dossier sàngam ngeen taxawoon dimbali ñu jàpp nañu ba dossier bu jàppandi ñu mën a teg lépp ci yoon ba bis bu ñu waa hôpital bi waxee nañu nañ ñëw ñu mën a jël sélectionné ñu indi fii ñu forme leen delluwaat di ko def bu yàggee du jar sax benn médecin jox li ñuy wax vidéo euh, euh, télémédecine mën na nekk comme li sëñ bi wax léegi mën na loo xam ne nii bu ko docteur yi soxlaa mën nañ leen ko wax fii sans docteur di fi déplacé dem ndax adresse bi léegi daanaka ne comme de communication bu gaaw moo fi am euh, ñiy sant bu baax nag ci liggéey bi ca xam ne lii ab tàmbali lii ci jaay yemukaay am na leneen yu nekk ci ginnaaw ah damay bañ a yoxe communication boo xam ne ni wax dëgg bu ñu demee ba ca kanam waaye ñu ñuy yeneen matériel yoo xam ne moo ëpp waaw matériel bii nag ki ñu ko jox benn professeur la boo xam ne euh, Torino la nekk te yàgg na ñëw senegal dafa wax ne daal am na yéene dugal loxoom ci Sénégal yàlla dugal muy bunt bi ñun jaare jaare ko ci suñu association bi kon itam ñu xam ne moom it ngir bu bu comme vidéo yi day wër mën naa am mu àgg ci moom ñu xamal ko moom it ñu ngi koy sant parce que liggéey liggéey la boo xam ne nii bu duggee ci njabootu Serigne Touba ku ci jëf suñu borom mën na la cee fay ca rafet nañ ci njort nag ñu ngi daal tàllal suñu loxo di sàkku ñaan yàlla ci saytaane musuñu ci am ndog musuñu ci lépp luy gàllankoor ab liggéey ndax koo xam ne juddu nga ba am plus de 50 ans ne da ngay liggéeyal Serigne Touba yaakaar naa li des ci sa kanam war ngaa mën a góorgóorlu ba dara war laa mën a teqatal di la yàqal kon yàlla na yàlla musal si taan nga ñaanal ko sang bi euh, wax dëgg yàlla noo bokk nekk bokk kër Serigne Sooy bu leen dëkk ñoo bokk yàgg foofu màgg foofu kon bu ñu sàkkoo ñaan googu la ñu ko xam ndax keroog maa ngi la koy junj bi ñuy dajee ci kër gi ma lu ñu ne ma kër Serigne Sooy bu mag gi laa jàng alxuraan ba fi bind kon ñun doomu Touba lañu Touba lañu juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee lu ñu amit yéene nañ ko Sénégal yëpp biñ demee hôpital Touba la gis nañ ne juróom-benni machine dialyse moo fa ne fi ne bëri na si Sénégal yu ne fii yoo ne mënutuñu dem Sénégal parce que mënuñu am place pour def maanaam maanaam def transfusion ne bu ñu war a def ñàkk gi ñu ko ñàkk a def tax na ñu ngi boole ko fii ci réew mi kon yaakaar naa lii bu demee war naa dana gën a mën a yaatal liggéey bi ñu ngi sant daal di gërëm euh, di gën a sàkkuwaat ñaan rek di ñaanal sunu président bi nga xam ne moom yàlla bi nga fi falee daaw rek lañ ko fi fal yàggagul ren ji dañ ko fal mu nekk président résident yi nga xam ne am nañ ko fi résident yii di ñëw ci suñu kanam yàlla nañ ko suñu borom defal yu raw yi mu fekk station bi mi ngi ci ñaar fukki at ak ñett waaw ñaar fukki at ak ñett ñu ngi koy taxawal fii fii immigré boo fi dajal rek donte du ab sénégalais nga laaj ko fii association sénégalais ñun la fii ñi nga xam ne institution yi nga xam ne fi mel ne préfecture li mel ne gouverneur ci région bi ak maanaam ñi nga xam ne jëm ci wàllu immigration yëpp xam nañ loolu man mi wax ak yéen ak soxna Wuli Mate man maay euh, vice président de conseil immigration ci région bi la toog gouverneur région bi mooy président bi soxna Wuli Mate mi ci conseil yi la kon Sénégal am na lu ñu yàlla joxoon fii 32 membres yooyu 4 yi ay sénégalais lañ te ñun ñoo fi gën kon yàlla dimbale nañu ba buntu boo fu kon yéene gi ñu amal yéene fas yéene ko liggéeyal Sénégal yal nañu ci sunu borom gën a doole jàppale ci barke borom di jégalu nag wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu jërëjëf sëñ daam lañ jox sëñ daam mooy commission sociale bi moo soxna Oulimata kenn ci ñoom. maa ngi jégalu may présenté ma fàtte waa daayira Maam Jaara bi ñoom la ñu àndal ñoom it waaw comme ci kii bi moo tax ma ne koy rek salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu Mbacke ñu ngi lay eh, dalal ak jàmm si fii si télévidéo di lay wax ak ahlan wa leen di tuub bu baax si kàddu yi nga xamante ne ñoo ngi koy yëkkatil lottu nañ ci lool waaye day ñun dañu man maanaam ñaari xisalaa tënkee si sama bopp mooy ñi nga xamante ne maanaam damay xool si sama bopp mooy mag yi nga xamante ne maanaam fekkee nañu sëñ bi ñooñu ñu am tawféex lool sëñ bi dimbale leen. xisa boobu maa ngi ko doon déggee si tonton Moustapha Ndiaye bi ñu may dalal si seen biir ñooñu ñoom dañaa am tawféexu fekkee sëñ bi daanaka ñooñu sant rek moo leen war waaye ñun nag sant ki sant ki sant yu dul yu xam ne xam nañu fu mu tàmbalee waaye xamuñu fu mu yam ndaxte dañu dañu dama jàpp si sama bopp njaboot bi nga xamante ne sëñ bi moo leen di tànnal si seen bopp boo xamante ne moom nee na moom ay taalibeem ay ruwam la seeni ruu la xamoon so balaa boobu ndey ak baay ndey baay amul xamante ne sëñ Touba daf ñu tawféexal tànnal ñu ay waajur yoo xamante ne man sama boroom kër laa fi fekk si waaye biñ may yàpp dañ mën a yar nañ la fi ñu la war a yaree sant nañ la gërëm nañ la jox nañ la borom kër na nga fexe ba mu sant la gërëm la bi ma ñëwee fii Mbàkke yàlla dimbale woon ma ma doon jàng Sénégal sama borom kër fekk ma si sama baay mu ñaanoon ko ni ko dimbale ko rek ndax xam naa ne boo ko wee sa njëriñ lay doon mu dimbale ma ba bi ma ñëwee fii mu dugal ma université yàlla dama fi jàppale ba mu taw feex ba am fi sama ay diplôme may jël cant boobu yëpp di ko ci di ko delloo ba yàlla dimbale ma ba tey ma ñëw si association bi sama ay baay laa fi eh, bokkal di nekk ñu jàppale ma xoolal ma yërmande seen soxna yi ñu am ak seen njaboot kon ñuy sant bu baax buñ toogee ba tey ñoom toog yàlla dimay may dimbale ba may jël kàddu damay tuub ba pare waaye da doon kàddu yu munta ñàkk ñaareel bi nga xamante ne mooy li may findeel si sama bopp te sama bopp doo déggee mën naa sama bopp dama koy wax ngir liggéeyu sañ Touba bi association bi lay mën a représenté dañuy njabootu sañ Abdou Hakim ndax sama borom kër fa la joxe woon boppam waaye man moom man moom moom man sama sëriñ mooy sama borom kër damay ne leneen lu ma am si sëñ Touba rek ab doon dolleeku la waaye man sama sëriñ mooy sama sëriñ moom nag waa kër sëñ Abdou Hakim la loolu ci si ku mun a dégg sëñ Abdou Hakim day def bu wootee ci tool bi ba pare bi mu fi daan nekk bu daan sant mbooloo bi ak di leen gërëm da leen leen xamoo leen li ci liggéey sëñ Touba bu daan soññee dama koy déglu bu baax di koy soññee sama bopp si YouTube saa su nekk di koy déglu di koy bégee mu ne leen bu ngeen xamoon li ci liggéey bi di ngeen euh, sëñ bi sëñ bi euh, ñaari jëmm la doon def kon euh, benn bi di liggéeyal morom bi kon nag yaaram alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilah ala kulli al sa association ACSI dañ ma jox sociale bi ma am ci rek yéene ndax liggéey sëñ bi moom mbartalub diw la boo laalee mu dem boo laalul mu dem tey bu ñu fi dajaloo tey ba Touba si kanam ñëw si association bi bug ñoo dimbale ba tey pour ñu am dolli si suñu liggéey euh, sant ab sant rek Mbacke kàddu sant rek di leen ñaan nga euh, nga dimbale ma rek euh, ba nga xam ne ñaan yee ngeen koy yokk ba lépp lu ñu yéene rek incha allah ñu siy daw safa ak marwa ndax yi foofu rek lañ ci mën a lañ ci mën a am si région région Veneto mi sëñ du nekk fii tey représentant wu immigré yëpp si Veneto suñu sëñ tubaat taw feexal nañu ba man li may nekk nekk gone nekk jigéen maa ngi ci biir waaye saa yu sama siy toog rek da li may yéem rek dama naan cey sëñ Touba ndax loolu rek laa si mën a gis Mbàkke gisuma si leneen donc association sociale bi ma fi taxawee Baye daam dem laa fi fekkoon ñu nekkoon ay mag yoo xam ne vingt ans si ginnaaw ba tey bi fi sëñ Moutala di leen di jox liggéey bi mu ñëw gis ni que am naa yéene liggéey te am naa si ndigal sama boroom kër si la ma joxee place am di may di may uuf rek ma koy wax paay daam dee may boot ndax gone laa si jàng laa toll may seetlu rek ba ci kanam waaye mu ne ma jigéen nga waaye gis naa si yow tawféex del di dem rek bul tiit boo gestoo rek euh, di nga ma gis incha allah si loolu la ñu taxaw mbaake moom nag euh, am na yu bëre yoo xamante ne doomu aadama yi dañ fi dañ fiy wàññeeku seen àpp jot ñu leen ñuy jàppale ba ñuy dellu si seen njaboot ñuy si profito di fàttaleeku sëñ Moustapha Ndiaye mi fi jóge bu yàggul mu doon si si association bi ak si yoon bi bokkoon tamit si ñun si région Veneto bi ñu bokk ak sëñ Modou ren la liggéeyam jeex fii si àdduna yàlla na ko suñu borom euh, booleek sëñ Touba incha allah si àdduna yu gën a kawe donc as am na ay ndimbal yu bëre yoo xamante ne au niveau social dinañ ko fii def muy jëm ci Sénégal lii sëñ moodu jot a wax mais tamit ren defe naa suma ma juumoon daam am na 42 lal yoo xamante ne euh, euh, jox nañ ñu ko mu dem yenn yi dem si kokki defe naa yéen si des nag ñu séddale ko si yeneeni gox <laughs> kon nag muy ay liggéey yoo xamante ne du ñu def lu dul tàllal suñu loxo ay ñaan rek lañu soxla asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu jox sëñ Abdourahmane Diop mi nga xam ne moo nekk fii ak ñun bokk ci fédération Touba Treviso euh, moom daanaka wax ci bis bi mu ñëwee ci daayira bi rek bis bi mu waxee rek dafa mel ne maanaam euh, dañ ko doon xaar dafa wax rek amuñ ci ñaari xalaat fi saasa la nit ñi bindu daal di joxe at mi yëpp seen cotisation kon nag mën naa wax ne ci eh, jiitu njiitu jëwriñu daayira bi ne xalaat bi bi mu accès bi ko ko sëñ Fallou waxee sëñ Fallou présenté ko keroog lañ ci sóobu lañ daal di dagg suñuy tikki ñun ñëpp commencé cotiser kon nag sëñ Abdourahmane ahasbillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh leen di nuyu bu baax di leen siyaar yéen ñëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ Abdoul Ahad di ko dalal jàmm fii ci Touba Veneto di nuyu ñëpp di leen siyaar di nuyu président association bi ak si ak mbooleem collaborateurs yi nga xam ne moom la àndal liggéey bi di leen jaajëfal di rafetlu bu baax taxawaay bi macha allah xam naa di wax tey ci xëy na ñetti taxawaay ginnaaw bu ñu. bu ñu leen nuyoo ci cellule Italie ci coordination bi ci njiitul Baye Xaas mi toog ak Baye Sëñ Mbàkke ak Abdourahmane Diop di nuyu ñëpp di leen ziar waaye nag di wax ci eh, région Veneto te sëñ Alaaji Fall mii toog jiite ko waaye dellooti nag di wax nag ci kàddu sëñ Bàcc Diop mi nga xam ne moo féete ci gox bi ci yéen di ñaan yàlla suñ borom defal ko tawfeex ba mu àgg ci jàmm ak salaam di rafetlu bu baax taxawaayam ci liggéey bi te di leen ko seereel yéen ñëpp ndax dañuy liggéeyee panel mel ni ku nekkul ci biir lu bari eh, da lay échappé waaye moom ko ak taxawaayam yaakaar naa kenn du leen ko wax donte sax moom daf ñuy yóbbante ne newul wax ji eh, jëf ji la mën a waxe Eh, te loolu bu ma ko waxee yéen da ngeen ko mën a xam bu baax a baax waaye téewul rek ñi ngi leen di xamal ne taxawaayam rafet na bu baax ci ni nga xam ne noonu la koy defee ci Touba ci kanam di sant yàlla bu baax nag ndax ah, bokk na ci suñu liggéey ci Touba ci kanam ñuy waxtaan ak président daayira yi bu baax a baax waaye seeral naa ko sëñ bi léegi loolu moom dañoo dalut fii li sëñ Omar Seye moom mu wax. loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg te it lool it moo am fii nga xam ni mooy Treviso ah màggal gi bu ñëwee ñooy bokk benn taabal ñooy bokk di def lépp sëriñ Fallou dem mii at ma la ci man la bind woon waaye dama ne ko sëñ bàcc nga gën a jege ci moom ngay bindu ci carnet dafay mel ni kon loolu mooy wane rek mbir mi benn la def ci ak sotti la kon ñu ciy sant yàlla bu baax di leen ci gërëm bu baax. dégg bu baax tamit li ngeen wax ci collaboration bi ci ànd liggéey bi loolu incha allahu bi sëñ bi moom loolu donc mooy yitteem loolu mooy li nga xam ni moo fi bàyyi nii ñu koy ñaanal yàlla suñu borom mu dëgëral ko yàggal ko fi ba mën a yàggale liggéey bi fi nga xam ne foofu leen ko bëggee li ci am solo daal ñun ñëpp ñu bokk xam ni Touba ca kanam mooy solution bi ah soññeet bi nag li ci am mooy. lii nga xam ne mooy liggéey Serigne Mountakha Mbacké mi yàlla na fi yàgg te wér di 37 milliards su fekkoon ne tey jii matal nañ suñ 24 milliards duñ laaj benn taalibe dërëm ndax liggéey bi lu gàtt gàtt des na ko liggéey ci ay euh, ñetti at juróom jëm jëm jëm juróom te kon bu nu doon def at mën ñu def ci 12 milliards du tee ñu desal 12 milliards yoo xam ne daan ci mën a def yeneen liggéey kon ne ñu ngi sant di gërëm. bañ a guddeel euh, wax ji ndax ginnaaw dañuy jàll feneen en tout cas daal sant nañ gërëm nañ bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf sëñ Abdourahmane léegi fekkee ne commission commission scientifique bi mën nañ ci dellu ay kàddu wala ñu ñu jàll léegi ci ci ci. bisimilah sëñ Xaadim. asalaamaaleykum di nuyoo tey ziar di ñaanal Cheikh Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal mu wér lool te lépp lu mun naa ci liggéeyal Serigne Touba yàlla def lépp sant ci kanamam di nuyu nag sëñ Abdoul Ahad mi fi ñëw tey mu sëñ Abib di teg euh, nuyoo bi ci ay loxoom jàllale ko ci mboolem ñëpp ñi nga xamante ni ay jëwriñ lañu te nekk senegal ci biir Touba ci kanam fii di ñëw di ziar suñu jëwriñ ñi ñu àndal fii ci liggéey bi. ñu ci tuddee sëñ xaasim sëñ Abdourahman Diop ak Baye Mbacke Diop di ziarit soxna yi nga xamante nii dañoo ñëw ànd ak ñu ci liggéey bi bu fu ñu jëm fu Touba ci kanam yëngu rek ñu jóg topp ñu ànd ak ñun di waa kër maam jaara di ñaan it ñoom it ànd bi ak ñun yàgg lool ba lépp lu ñu bëgg ci liggéey bi rek suñu borom yombalal leen ko incha allah ah di ñëw rek di sant bu baax a baax a baax bisu tey bii te di wax ne xëy na jamono moo xat rek waaye lii yayoo woon na tey ñu wut saal bu mag a mag a mag def ko fa mbooloo mi yëpp ñëw ñu gis ko te lii association bi agsi dañuy association boo xamante nii dafa day soññe ndax foo leen tudd rek ñu ne ñoon seen jëf ak soññ la ndax li ñu fiy def ñuy umpul kenn te saa yu ñu xëyee rek day gën du yokk ma gis nag mu rafet lool benn collaboration boo xamante nii ñoom ñu danañ ko am ak waa Touba ca kanam ndax liggéey bi day gën yomb rek ndax fa ñu mëbët àgg fa ak fa waa Touba ca kanam mëbët jëm fa dafa mel ni yàlla dafa leen boole dajale ndax lii la ñu doon xaar te lii incha allah bu ñu jógee fii dinañ ubbaat yeneen bunt yoo xamante ni liggéeyukaay la entre ñun ak ñoom. Euh, commission bi ñu yore nag di commission ñu ko tuddee ko scientifique bi dafay loo xamante nii dafay yombal liggéey bi ci biir Touba ci kanam. ndax Touba Ca Kanam dafa bëri ay bunt yoo xamante ni bunt bu ci nekk rek am nañ ay motet ay jumtuwaay xarala yoo xamante ni mi ngi fii ak ñun que yegg na foo xamante ni dootul liggéey boo xamante ni eh, liggéeyu traditionnel lay doon dafa laaj loo xamante nii lii liggéeyu moderne la te ñu koy mën a taxawee ñu ngi ci biir ñu koy taxawee ndax kat ku ñu ne ñaari téeméeri ñaari millions yi murit la ñuy laaj di nga wut fexe ba am noo xamante nii di nga mën a saytoo say lim. tàmbalee ko ci benn ba këram nga yegg ci ñaari million te koo amate di nga fexe ba mën koo téyel sa bopp ndaxte kat ñooñu ñoom ñooy li nga xamante ne nii moom la ñuy tudde nag ressource yi Touba ci kanam bu ko defee nag ci biir loolu ci la ñu def liggéey yi yëpp ak yeneen liggéey yoo xamante ne nii ak yeneen liggéey yoo xamante nii ay fiche la nit koo xam ne dañ lay jox ay reçu nga koy dagg di ko jox mbokki taalibe yi dinañ lay ameel fiche yoo xamante nii di nga mën a xam ñaata reçu nga jël ñaata bolok nga jël séri bolok yi ak ñaata risi nga jaay ñaata bolok nga jaay dina dem ba stock bi boo jeexalee at mi da ngay daal di bind lépp doo jaay ba pare toog nag di xalaat lii laa jaay waaye loo jaay da ngay bind ba ëllëg gi si bu nga nee foo toll rek da ngay génn teg bu ko defee ñi nga xamante ni ñooy liggéey yore kaane yi boo xëyee suba koo ci ne ñaata murit nga am day xool ne la am naa nangam bu koy nee am naa nangam ñu daal di saytu fii lañ toll loolu mooy liggéey bi. di xam fi ngay toll ak fi ngay dem di soññ suñu bopp nag di soññ toujours di wax ne kenn yàqamtiwuñu dañoo wax nan dox ndànk na leer te na liggéey bi sell ba nga xamante ni que ëllëg ak si bi ñuy ñëw suñu ginnaaw bu ñu ñëwee dinañ xam fi ñuy teg seen tànk ndax dinañ ne kat nii kat daa ni ñun lañ doon liggéeyal loolu lañ ciy sàkku tey ñaan mbokki taaliba yëpp ñëw ci te xam ne Touba ci kanam du liggéeyu ak daayira du liggéeyu kenn ku dul ku yëg ci boppam rek ab taaliba Serigne Touba ñu ngi lay woo. nga ñëw ci liggéey bi liggéey Touba nag ñun Touba rek lan am suñu këri dëgg yëpp Touba la koo ci wax mu ne ëllëg Touba la kon nag war nañu soo def ca dëkk ba loo xam ne gi ëllëg gisi yàlla na yeex yàlla na yàlla may ñu guddi kon ku dugg ca suuf sa suuf sa gërëm la incha allah loolu daal la ñuy ñaan di sant bu baax a baax a baax di ñaan Mbàkke nag eh, li ñu bëgg ci Touba ci kanam xam ngeen ko ndax yéen yéenay kënu yi liñ ci bëgg xam ngeen ko te mi ngi seen xol ngeen koy fas ñu leen koy ñaan ngeen ñu koy ñaanal ngeen koy def ci ñun du ko def ci mbokk taalibe bi ñu sant bi baax nag tey bëgg lool incha allah di sant yéen bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ziyaare sunu kilifa gi toog fi tey eh, ngir bagage yi ñu fi indi tey di sant eh, waa association bi ndax liggéey bu am solo lañ fi indi. maa ngi waxee nag ki turu daayira Soxna Jaara fédération bi so daayira Soxna Jaara yëpp nag laa wax maa ngi waxe ci seenu tur maa ngi leen di waxoo ci liggéeyu Serigne Touba bii bépp daay bépp daayira Soxna Jaara maa ngi lay woo ci liggéey Serigne Touba bi ndax kat liggéey bi amul tànk ginnaaw tànk kanam laam te ñun waa daayira Soxna Jaara am na liggéey bu rëy bu ci nekk boo xam ne war nañ koo mën a def ci biir loolu nag ñun waa daayira Soxna Jaara ñoo war a tasee waxtaanee ko ndax liggéey bu mag a ngi ci biir boo xam ne jigéen ñi ñoo ko moom jigéen euh, daayira bu ci nekk nag war ngaa xalaat ba xam liggéey boobu liggéey ban la ndax bu yàggul dong def nañ ko daayira bu nekk taxaw na def ko muy suñ dëkk bee nga xamante ni ne euh, war nan faa taxaw ñun góor war na faa taxaw def jigéen war na faa taxaw def ndax ñun suñ génn bii tukki du génn tukki de génn liggéey li Serigne Touba indi ko biir Touba la waaw kon comme que góor ñi nag ñi ngi jóg di liggéey sëriñ tubaa suñu borom kër yi di indi biir Touba ñun jigéen ñi nañ jóg topp seen ginnaaw liggéeyal Soxna Jaara indi biir Touba maa ngi woo bépp jaara jaara nag tey kontaan nag ci matériel bii ngeen indi lu am solo la biir Touba ndaxte dina dimbale ñu bëri ndax ñu bëri feebar nan feebar boo xam ne mënunoo fexe ba jot ci machine yi machine yi nag tey bu demee dina jariñ lool ci suñu dëkk ba maa ngi leen di sant di leen gërëm te xam ne liggéey bu am solo na ngeen di liggéey seen i doom nag ngeen di won nag liggéey bi ndax ëllëg seen i doom ñoo koy liggéey lii leen i wax naan tegal sa tànk fu baax boo lëgee sa doom teg ko fa yéen a teg seen foo xam ne du ko récc ba mukk waaye ñun seen soxna yi ñoo ngi topp seen ginaar di teg suñu tànk foo xam ne duñ ko rëcc ba mukk ngir yéen rek yéen a tax ak liggéeyal soxna jaara bi nga xam ne moonu liggéeyal tay tey ji ba fu nekk ñuy dégg kàddu jigéen ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm tey woon soxna jaara yi bu baax a baax a baax ñu ñëw daay daayira soxna jaara yi ñëw leen bu baax ci liggéey bi am na solo Touba ca kanam na ñëpp ñëw ñu liggéeyal Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ma may ma may sëñ daam li may ñaan rek gannaaw bi ñu nuyoo mooy waaw commune rurale bu Touba bi ñu ñëwee fii ci taabal ji am na lu ñu waxante woon ak ñoom loolee rek dañ koy waxaat fii mooy agsi dafa nekk benn station boo xamante mi ngi mel ne kuy wut fanaan ak kuy wut ku ko wettali kon dafa mel ne nun ñoo bëgg wut fu ñu fanaan yéen yéen ngi leen wettali kon jàpp naa ne bu fekkee ne maam yéen waa Touba ca kanam jàppe ngeen ko noonu nun tam ñu jàppee ko nii jàpp naa ne yaakaar naa bu ñu ci néeg bi néeg bi na rafet li ma ci dëggaat mooy itam. nanu fexe ba lépp loo xam ne def nañ ko mu am ak saytu goo xamante ni ndax nun dañoo baaxoo am dara léegi waaye buñ paree suivi bu ci boppam da nekk problème boo xamante lu ñu defar day yàqu loolu nun da agsi am na luñ ci jot a xam ba loo xamante ni wax dëgg yàlla am na liggéey yoo xam ne am na ñu ko seexloon ñoo xam ne wax dëgg yàlla dem nañ ba mujj yàgg xaw nañu réccu ndax nun liggéey nañ te nekk dañ fa nekk ak suñuy nawle tey wér nañ nu am nañ capacité boo xam ne ni lu baax lu nekk yeneen nañu ko waaye nag ñi ngi koy teg seen loxo itam saytu ba da am solo ba nga xamante ni bu soobee yàlla ñoom buñ fa ñëwee dañ ci teg seen ba dañ xam ne ñii mën nañoo dolli waaye jox la loo xam ne bu ñëwee buñ ko xoolee gis ne xam ne lii wax dëgg yàlla ñu mérito wuñ ko yàlla ñu ci yàlla musal asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw bisimilah xam naa ne jataay bi fii la ñuy yemal jataay bi dañu bëgg a jox sëñ bi waaw dañu bëgg a jox sëñ bi euh, mu sànni ci ay kàddu li ñu bëgg wax rek moo di ne matériel bii ngeen gis matériel bu ñu révisionné yaakaar naa ne sax garantie bi jeexagut garantie am jeexagut kon nag matériel boo xam ne bu nekk dans les normes la matériel bu bu bu ñu révisionné la ba nga xam ne moom moom sax yaakaar naa ne du bu sëñ Modou am na lu mu ci war a yokk yoo xam ne. waaw benn minute rek maanaam euh, dama oto waaye li may wax laa ko waroon technicien bi nga xam ne nii moom mooy installer machine yi nee na ma moom disponible na pour déplacer wu ñëw Sénégal installer machine yi. bu fekkee am na technicien yu fa nekk bu am na am na moom mu ñëw wan leen ni ñuy installer machine yi am na matériel yi nga xam ne ñooy accompagner machine yi moom technicien bi moo ko yore ci benn magasin bu nekk boori Torino moom mm, itam incha allah saa bu ñu waxee jëli matériel bi danañ mën jëli matériel bi fexe ba ngeen jot ci saa bu ngeen àggee ci am fu ngeen ko war a dugal installer rek su ngeen ko waxee ñoom ñu fexe wax ko ban date la mën a ñëw kañ la disponible ñu yebal ko mu ñëw Touba toog foofu installer leen machine bu egg su jaree sax mu indi fi kenn wala ñaar formé ko ba bu ëllëg su machine yi amee ay jafe-jafe moom mën ko lijjanti sans ngeen di fi ñëw ndax machine yi machine la yoo xam ne ni machine yu xam ne nii dafa ne day naq réparé yi yoo xam ne machine ko réparé moom mooy moo dar génération bi ñu yore bii moo moo moo moo remplacé bii waaw ñoom dañoo dindi rek monté yi ñu yor léegi kon ba bis ñu koy démonté mi ngi dox kon bu ñu àggee rek incha allah bu loolu moom bu ngeen bu ñu jokkoo ak président rek danañ a wax technicien bi kañ lay disponible ak kañ la war a mën a ñëw Sénégal incha allah loolu président ngi ni toog bu ngeen gaar woon conteneur fii tey ñu jël lépp lu ñu ko ci sart ko ci seen kanam ngeen dem yéen a ko fi bàyyi. mbokki jullit yi fi teew yëpp mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax leen sant bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu doomam yàggal ko fi lool te may ko wér te lim naa la Sëriñ lépp mu àgg te ànd ko moom di leen jottali nag am nuyoom ak ñaanam waaw yàlla dogalee nuy jug di ñëw dem nañ ci moom tàgg ko mu jox nu ndigal yóbbante nu am nuyoo ci yi ak ñaan xamal na baax na ci ndax ab soññee lay doon ci liggéey bi loolu nag ba ko waxee ñu daal di koy jàppe ab soññ ci suñu bopp ba noppi mm, di wax it ci kàddu kilifa yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi di alhaji sëñ tàkk moom Cheikh Mamadou Fadou ak sëriñ niñ ko waxee ñooy kilifa yi ñun dañuy seen jëw ñu ànd ak donga yi di leen liggéeyal ak ci tool bi nga jëmi sëñ Tuubaa kon ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ñoom itam di leen jottali ak cant ab sunu nuyoo nag ak sunu cant di ko teg ci njiitul association ak jamhiyatu ak taawun ala taati laahi wa sëñ laaj ak sëñ Mat Diop ak sëñ sëñ daam bi ak soxna yi ak jëm mboolem yi ñu ko àndal ñëpp di nuyu waa Touba ci kanam ñu àndal di leen sant bu baax ci njiitum suñu xaas Diop suñu Abdourahmane Diop ak Serigne ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu coordination bi xaaye nag ñu ànd ak bi ñuy ñëw Jong ak suñu mag Diouf fekk fi suñu xaadim moom ñu ngi suñu Abdourahmane ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ak soxna yi nga xam ne ñooy soxna yi kër maam Dia ak mboolem nag bokk taalibe bi ñu fi fekk ak yi ñu àndal yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen sant di am mbégte bu baax a baax ak xol bu sedd ak xel mu dal ci liggéey bi nga xam ne yéen a koy liggéey sëñ Tuubaa te mu mel ne ku fi dikk doog a dikk teyit am noppam moom seen jëf tàbbi na ci njëkk tey seen i jëf moom naka jekk ñu ngi koy yëg ñu ngi koy dégg seen taxawaay ñu ngi koy yëg ñu ngi koy dégg li ngeen def ci dëkk ba it ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg kon suñ xel dal na lool rafet nañ jox bu baax baax ci ànd bi nga xam ne yàlla boole nañu ko ndax ñu bokk ak bëgg ñoo mën a ànd ñu bokk fañ fuñ jëm ñoo mën a ànd te noo bokk fuñ jëm kon ginnaaw bu ñu sant yàlla di fàttaliku suñu kilifa gu baax googu di Cheikh Mamadou Mourtada doon jàmbaar lislaam joo xam ne kenn du ko fàtte lii lépp bokk ci ab liggéey bu mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko yoon ci sallallahu la wasallam liggéeyal ko Sëñ Tuubaa ci lislaam mu doon loo xam ne it gis-gis bu sori la amoon ndax ba muy digle yii ñu bari xamuñ woon lu mu ci jublu tey leer na nañ kon moom fuñ toog warees na ko fàttaliku di ñaan suñu borom mu dolli ko ay leer ak ngërëm ak ay barke ci barke Sëriñ Tuubaa te taas na ci barkeem di waxit ne ab soññ ko la ci noonu itam ndax dafa mel ne danañu yërëm coono yi waaye ba suñ xel demee ci moom dootuñu yëg li ñuy daj ndax dem na ba doon mag ay atam aw yaramam mayatu ko mujj na buy dugg ci avion yi daanaka dañ koy jàpp waaye nu nga wut a toog ndax xam ne lislaam lay liggéeyal te lu toll lislaam dañ cee war nekk ba suñ borom wàccee la rek la yàlla wax ca laay jeeg wax bu rabbaka xataa yaatiyakal yaqin yaqin ji nag mooy faatu suñu suñu bi suñu woy bi ko firi na yaqin mooy faatu ndax ab jullit li fekk faatu rek amul yaqin boobu suñ motulaa noonu la doon doxee kon képp koo xam ne ab nga rawatina ko yaakaar suñ duwaa war nga bàyyi xel war na laa ab soññi ci moom ci nam daan liggéey te liggéey bi it aussi bi ñëpp gis nañ ko tey kon moom ab soññee la ci noonu ci coono buñ ci mën a jànkuwanteel rek duñ ko yëg ngir jëmm ak fa mu tolloon ndax ko xam ne boo toogoon ñëpp fekk si la lépp fekk si la te mosoo nangoo toog ku ne xam ne lislaam doo nga taxoon muy sonn waaye nag ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne it lam leen digaloon ba mu leen ko digalee ngeen def ko ba tey yéen a ngi ciy dox te daccu leen ci sonn leen ci tayu leen ci kon loolu it yéen seen ndimbala ah alhamdulilah ñu sant yàlla mi nga xam ne moo nu boole sëñ bi ndax lii soxna si doon wax léegi sëñ bi waa ko waxaloon boppam sëñ wax ne ba yàlla tànnee woy ba teg leen ban ne alastu bi rabbikum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak loolu moo njëkk a wuyu ne ko ballee suñ nee na maa ca topp nee na ba ma ca toppee suñu borom daa wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko tànnal saw xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw xeetam ba mu jeex suñu borom ne ma yow mu ci topp tànnal saw xeet ma ne ah, du ma tànn ci li fi yonent bi bàyyi dama ko fi bàyyi damay dugg ci biir la bi tànn tànn sama ñoom daan ne mboolem ku fi dikk sëngoo indi wala bis boobu laa la tànnaale kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñun ñi nga xam ne sëñ Tuubaa dafa tànn aw ñooñu tànn naa lañu ci waaye nag kon xam ne mënuñu koo fey liñ ma li li waaw ci noonu rek mooy di yëngutu ci moom ba bañuy faatu rek waaye fay ko moom mëneesu kon nag lii ngeen def te daa ko def ci tuubaa waa Touba ci kanam gépp ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ci gërëm ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yokk seen kàttan yokk seen ndimbal yokk seen tawfeex Euh, moyens yi ngeen am ci niñ ko mën a waxee ba mën a am lii waxtu ne muy yokk kóoliteef gi tubaab yi gis ci yéen ak doyloo gi ba tax lu yéen sàkku jox leen ko yàlla na ko suñ boobam dolli waxtu wu ne si bàkkib sëñ Tuubaa yàlla na leen ci dimbali ba lépp luñ teg seen loxo ngeen dugal ko foo xam ne lislaam dana ci ñu tayal bi julli ñëpp jaaruñu ci tayal bi yëpp jaaruñu ci ndax loola mooy mooy doon loo xam ne bu ëllëgee moom mooy résultat ba nga xam ne moom lañ leen di fayee loolu nag mooy pay nga ñëw ñëpp xaj ci yàlla na ko suñu borom def ndax li ngeen fi lim ci lu ngeen jot a def ak yee ko jiitu yëpp lenn loo xam ne seen bopp tax ngeen def ko amut li ngeen ci laaj lépp it defu leen ko seen bopp yàlla yàllaa tax yonente bi sëñ Tuubaa te delluwaan ngeen ko ci njabootu ñooñu alxiyaalu xiyaalullaa njaboot gi mooy ñooy njabootu yàlla képp ku bëggee liggéeyal yàlla boo ko liggéeyalee ci jaamu yaa ngi koy kon nag lii ngeen di def tur bi ko sëñ Mourtalla tudde it day day dëppoog loola kon yéen wax dëgg ak cant rek lañ leen ameel xëy na soññi mënta ñàkk ci diggante jullitam bokkum jullitam ak taalibeem moomam taalibeem xëy na soññi du ca mën a ñàkk waaye yéen a nga ca yoon wa lii ngeen def lu am solo la lu Touba ca kanam yëg la lu luñ jàpp la ndax machine yii kat fa ñu jëm soxla nañ ko fa lool ndax liste attente ba nga xam ne mooy nekk fa ñuy jëli sa dana dem ba ay deux mille nangam nga xam ne léeg-léeg sax nit ñi ñi ciy faatu maa day taal balaa seen tóor ak suñu faatu li ciy faatu kenn xamul nu doon te néew néew foofa moo ko waral kon bu ñu amee lii mel nii man fee jógee mën a dem foofa ñu mën koo jëfandikoo ay jullit mën caa doxe man caa faju yooyu tuyaaba yàlla dong moo xam nu mu toll kon nag Touba ci kanam ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen tàllal loxo di leen xamal ne itam liggéeyu sëñ Touba la boo xam ne ni ko ñu jiitu ñëpp waxee ubbil nañ ci suñ buntu ñëpp parce que yéen ànd ak taalibe sëñ Touba yëpp ànd ko ñëpp ndax Touba kenn woo koo defal taalibe sëñ Touba lépp lu baax lu am njariñ tey ëllëg ñun ñun ñun yaakaar sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dong lañ ko yaakaar kon nag war na noo fexe ba lii sëñ bi wax léegi sànq ba la ñoo dugg ci suuf sa nañ ca fekk kenn ku ne jëf ca loo xam ne dana la wóor ne suuf si gawam na ndax daana waxal boppam kat bi mu nekkee njëwam ne suufu Tuubaa bu ma tabjee lu ma bëgg def ci néew su ma tabjee suuf sa defal ma ko soo suuf nag kenn amul njëwam daana wax genn bëgg laa am ci kaw suuf gannaaw yàlla yonent bi muy sama dëkk bee di Tuubaa ndax dëkk ba yàlla dama ko tànn ay xejj dañ ko bëggoon ñëpp di ko wut ci yàlla yàlla ne dëkk bi tànn la sa bopp dëkk bi tànn ma bëgg ko dëkk ba bëgg ma moo tax ku fa dëkk duma lay ma laaj kenn bu ma saa ubbi ki koo xam ne jóge na Touba booy ñu bu buy nuyoo daanaka ñeneen ñi dëkkoon ci kër gi moom dañu daal di xam ne tey duñu fa mën a yaatu ndax ñu jóge Touba la gan ñu jóge Touba la sëñ bi am ñooñu lay waxal ci lépp ba muy noppi ci ñoom Touba la mas di bëgg fu mu mas a nekk mi ngi ñaan boromam mu delloo si ko Touba daana wax ne ba da ngeen defee ne gimiñ kenn mucc na ci ñu ne ko ah, Mbàkke mu ne man de mucc ma ci gimiñ gimiñ mucc mucc ndax ña gimiñ moo tax moo ma jàpp bu tax mënumaa toog tubaa li ma doon sa li ma bu ma muccutoon ci gimiñ damay dëkk tubaa toog fa di jàngale alxuraan ku ñëw fekk moom ñàkk dama ko ñàkk man nag gimiñ la ci man suñ moom ci boppam daana wax boppam loolu kon tubaa dong la ma sa am moom la mas sa bëgg kon fu nekk waaye nekk di yëngu loo xam ne luy jëmale tubaa ci kanam la boo ko yéegi ak boo ko yéegu yaa ngi liggéeyal sëñ Touba yaa ngi def lu neex sëñ Touba kon nag lii moom sant nañ ci bu baax sun xel sedd na ci sun xel it na ci yéen bu baax a baax yàlla na leen suñu borom dolli kàttan dolli leen ndimbal dolli leen i xéewal dolli leen musal musal seen njaboot yi ba lépp lu ngeen yéene liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen defe ko na ngeen ko mën tan bokk ko te sëñ bi nangul na ko te dencal na ko fa yàqu ak ci bàkki sëñ Tuubaa jërë sëñ bi kon léegi sëñ bi matériel baa ngi noonu comme ni ko sëñ bi doon laaja rek rek kàttu rek matériel baa ngi nii waaw dañoo bëgg a def bi waaw waaw maa ngi jégguluwaat baax te di wax ne dafa am loo xam ne dañ ko war a leeral itam kële yor appareil bi na le mooy sëñ Moustapha Ndiaye moom moo nekkoon président ACS liggéey bi mu commencé itam ci loxoom la commencé kon continuité la man maa nekkoon trésorier moom moo nekkoon président léegi nag man maay président bi waaye liggéey bi ñoo ko bokk ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci liggéey bi nga xamante ne nii moo ko yoroon doon ci dox doxin wu rafet wu sell avant muy nekk président sëñ mot Diop mii moo fi nekkoon président ay at waaye ñu xam ne liggéey bi ay taalibe lañ te li ma waxoon léegi rek lépp loo xam ne ni eh, yëkkati nañ ko incha allahu rabbi nañ ci xalaat ki nga xam ne woon moo moo digle woon lii ñuy dox ndax ki ko digle woon dafa am loo xam ne nii eh, daf ko cee namoon te loolu itam incha allahu rabbi danañ ci teg suñu tànk lépp loo xamante ne nii lu lu doon bañ la danañ ko ko bañ la incha allahu rabbi ñoo ngi sant bu baax eh, kon danañ la jox matériel bi danan ko fir eh, confirmer ndax bind nañ ko ci langue bi ñu nekk muy italien bind ko tam ci langue français bi nga xam ne bu ñu demee Sénégal ñu man ko faa lire catholique bi itam mi ngi nii lu valable la lu ñu jox yoo xamante ni nii amut fu ñu koy nëbbu wala fu ñu koy làq-làqal sëñ jong doon na ko laaj loolu moo ci suba suba bu lañ indiwoon conteneur ñun ñu ñu sarse ko mu dem Sénégal incha allahu rabbi jërë ngeen jox ok jëw ngeen jëf yéen waa association bi ñu ngi nuyu suñ si ñi ngi lay sant bu baax suñ Mahamadou Lamine Diop moom di ko sant bu baax mu ko waxee dikkoon na fa ci ak moom tey jii nag li ngeen nu jox moomunu ko sëñ Tuubaa moom moom ngeen ko jox moom ngeen ko jox nag am nag pay yàlla na leen pay lu kawe seen moom barkib sëñ Tuubaa fas nañ yéene yi ñun ñi ngeen ko teg ci seen loxo daañu leen ko yóbbul ca dëkk bu sell ba di Touba dugalal leen ko ca fajukaay Sëñ Touba yi ñu faj taalibe Sëñ Touba yi jërë ngeen jëf baak Thank you. ñu defaale ñaan mu ne ñu defaale ñaan ñu defaale ñaan bisimilah وجل رأي مسكري Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat